oui voilà ba janvier ñu xool. du penalty bi kay sax. Ah. waaw waaw mais de toute façon loolu moom ñëpp gis nañ ko parce que dafa xaw a jéegu dayoo ni ñu koy waxee dafa ëpp. parce que mosuñu mosuma gis loolu mais nag boo xoolee détail xam ne xam nga Belgique ñoom dañuy xam ne ree ba tas arrêté penalty moom ñu la si aj ay quatre semaines trois semaine dafa ëpp daal te man am na loo xamante ne bu yow sama dee wala mu bañ a joué ah, mais du ma ko nangu xam nga voilà sama caractère non la mel du lu may forcé noonu la ma yàlla bindee et que nangu ma won woon may buuxanteeg ñoom et que parce que de bëgg bu ñu koy loo xamante ne bu ñu koy def ak man dañ ko def yeneen joueurs yi nga xamante ne seen joueurs yi nekk foofu la nga xamante peut-être belge la français je m'en fous ouais comme nous respecté hamant jour joueur bi ñu respecté parce que tey su ma demee ba penalty du woon lu ma bëggoon la tu vois. Euh, bu si xajee ba ñu lay ay trois semaines wala affaire yooyu noonu dañ lay yar ak yooyu non man nekkuma <laughs> école de football bi ñuy yar affaire yooyu noonu tu vois mm-hmm. loolu moo waral problème bi yëpp nag mais nag euh, alhamdulilah parce que yenn saa yi si sa carrière di nga jànkonteel yenn problème yi mm-hmm. nga si am expérience bu baax et que da ngay bàyyi mu jàll nga continuer club bi dafa am règle am na ki nga xamante ni moom moo waroon penalty bi. Mm-hmm waaye bi penalty bi amee dafa dafa un moment bi nga xamante ne si man peut-être instant bi du neex comprendre niveau boobu ma tolloon noonu gisuma woon dara lu dul détente situation yi. parce que moi, may dugg si terrain bi dama coach bi daf ma dee ne ma yow da nga ñëw fii pour aider ñu Ligue des champions comprendre nga et que il est temps de détente situation yi affaire yooyu bon ma ko pas de problème bi ma duggee yàgguma si terrain ma créé penalty tu vois et bi ma créé penalty yi man man Sénégal dañu wax man dóor penalty lay def lay dougal ah. Hein? Mm-hmm. alors euh, instant boobu man ku ma waxoon dinaa ko rete duma ko gëm. Mm-hmm. waaw après capitaine bimu mu deuxième capitaine bi ko bàyyil ma dóor mom si jëm boppam sax wóor dafa tiitoon parce que bu des moments avant coup franc boko jël.

Euh, parfois boo juumee da ngay demander excuse loolu man bañu ma ko après loolu jàll na bañ passé ko mais coach bi xëy na da ko dencoon si moom moo tax euh, ni nga waxee. waaw yàgg. foofu beneen la penalty foofu man la woon maa ko doon dóor foofu benn numéro mooy am tireur man la woon bi ma nekk daal Galatasaray léegi penalty woo dafa foo xoolee dama njëkk a dugal benn penalty bi ma may beneen mu ne moom may ko ko ma bàyyi bal bi.

nanguwuñu situation bi kii dóor ko déjà booy man xam naa moom caractère bu garaaw la yor moom instant mënoon na mer sa ñëw dóor bal bi nu ko neexee bu baax man dinaa am problème ak coach bi parce que coach bi suñu coach dafa tàng quoi. voilà dafa doon ki nga xamante ne tey am na yoo boo jëlu sa responsable mu ne ne yow la loolu ma waroon ma jëlaatoon bal bi dóor ko mais boobu xëccoo max moom boo xoolee grâce à penalty yëpp man maa ko doon door waaw bii moom man maa tooñ Bruges man maa jël bal bi wanu moon dóor.

Eh, Galatasaray yaa ngi gis ci réseaux sociaux man xamul loolu bettu waa waaw ne ni ma ko waxee rek yàlla daf may suturaal chaque fois parce que te ñoom lu ñu yaakaaroon ci beneen jour bi gisuñu ko te man anam yu ma fa def lu mu gàtt gàtt ni mu ko duree ñoom kenn defu ko si man du ma dara waaye xam naa lii ma xamante ne yàlla may na ma ko foofu si terrain bi léegi nag man tey su ma delloo Galatasaray yàlla xaw ma nag dinaa delloo dellu mais probablement moom moo gën a yomb tey.

parce que bu doon mal la tam ma nekk foofu di dugal sa place am c'est normal keneen du ñëw waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa su ma delluwaatee suma niveau bu dee but rek moo tax ñuy woote dinañ ma waat loolu laay ñaan continuer après international mi sama kanam tu vois euh, parce que man ba may dem Bourouge euh, bi ma nekkee Bourouge man coach bi waxtaan ak moom Alioune tu vois mu ne ma fils mu ne ma dellu si sa niveau nga joué international ou ubbeeku na pour ñëpp amuma ak yow benn problème ma ne ko amul problème moment maa ngi doon xaar rek reprendre sama niveau si Bruges boobu dugg parce que man man waroon na ma ne Bruges suma coach bi moom xam coach bi maa moom jubóo ñu nag mais xam naa il est pas content sama man me jouer comprendre nga parce que du lépp li ñuy wax peut-être mën na ko gisee tu vois parce que man ba ma ñëw foofu moom moom indi foofu président bi si boppam man moom indi foofu man maa man mosuma ko xam mosuñu wax.

parce que Bruges Ligue des Champions mon fa yóbbu pour ma jouer ko ñoom loolu moo leen tax ñu woo du parce que tey du ma bàyyi Galatasaray di dem Ligue di di dem jouer euh, Bruges parce que <laughs> pour man man moo gënal exemple soo loolu moo ko waral mais exemple après mu demee ba xool ne xam ne ni kii joué wutul Ligue des bu ma xamee ne joué wutul Ligue Champions laa commencé commencé tu vois mais a un problème de toute façon lii am am na ba pare Ligue des Champions jeex mais tourner la page.